acca <laughs> jërë ngeen jëf uh, yéen sunu mbokk internet bu Dakar People ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di dellowaat ku nekk uh, sa wàccuwaay amaat li di kontante ak mbégte bu baax a baax na comme ni ma ko faral def ak kilifa yëpp képp ku ma ci dalal ñu fas yéene waxtaan ci xam-xam yaatal ci bu baax a baax waaye li di xew-xewu jamono di actualité duñ ko fàtte ndax uh, doon na loo xam ne saa su nekk nit ñu ngi koy safoo ci ay bés bu jot dinañ ci yaatal bu baax a baax. ki may dalal tey mu di kilifa kenn du ko présenté te mu di Cheikh Oumar Thiam dinañ ci bàyyi mu yaatal bu baax waaye laata may dugg sama biir programme damay bàyyi nga nuyoo mbokk askan waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh ngi leen di ziar bu baax a baax. Mhm. di rafetlu seen teewaay ndax uh, wax dëgg yàlla ñuy kilifa diine kilifa aada yi di wax ne bisimilah yaay si ngeen seen kër. Mhm. di nuyu mboolem kilifa yi. ku ci nekk ñu ngi lay tàllal loxo di la nuyu di la bu baax di la ñaanal fan wu gudd ànd ak wér-gu-yaram di nuyu suñu président Macky Sall di ñaan yàlla may ko ndam ci sumb yi sumb di leen wax ne bisimilah. jërëjëf euh, Cheikh Omar Thiam ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw seen yu set yooyu tànd ak daal ñu ngi ciy kontaan bu baax dinaan la dalal jàmm comme ni ñu koy defee ak say naataango yëpp noonu lañ ci fas yéenee doxal waaye lépp ci xam-xam lañ koy wéer. Euh, dinañ waxtaan ci juróom benni ponk yaatal ci mm-hmm. euh, lii jëm na ci paj waaye li des dañuy dellusiwaat ci ñaan bi nga xam ne yaa ngi koy def to kenn euh, werante to ndax yaa ngi ciy def lii di résultat di preuve mm-hmm. actualité di xew-xew jamono combat bi dox ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier gars yi su ngeen bëggee xam kan mooy daan kiy jël ndam li topp leen vidéo ba jeex ndax dina ci leeral dina leen wax kan mooy daan a tey daam foo xam ne foofu laa namoon ñu tàmbale Cheikh Omar mm-hmm. mu di seen Euh, duñ seet nag yaatu na li dëkk ñëw ci hmm. biir ak ku nekk ni ngay seete waaye dañ ñëw ci nen ngay seete Cheikh Omar waaw baxda aousu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani hmm. nga lu am solo ah. doomu adama lépp lu muy dugg dangaa war a seet hmm. ndax yenent bi moo ñu déggal lépp luy waay dugg dangaa war a seet mooy déglu daneen leerlu seen mbir kon wàllu seet yàlla daf ñu ci may xam-xam bu rëy wax naa ne seet xalifa général bi man la macha allah ndax kër gu nekk kër xalifa diine gu nekk xam na xalifa général mm-hmm. waaye sëriñ si bépp sëriñ buy seet ci kaw suuf xalifa bi man la ci kaw suuf képp kuy seet incha allahu rabbi uh-huh. xalifa bi mu ngi nii macha allah lépp luy waay di nëbbu mm-hmm. bu mu xaasi fii bu xaasee incha allahu rabbi danañ ko wax ba wax loo xamante mu ngi koy nëbbu wàllu seet dafa am lu ñu si yàlla may. Mhm. te képp koo xamante ni maanaam bëgg na leerlu mbiram. Mhm. bëgg kaay seetlu ñu wax ko loo xamante ni maanaam du dëñ. Mhm. incha allahu rabi bu ñu woowee danañ ko seetal te danañ ko teg si saraxam te incha allahu rabi bu ko defee xaajoom faju man naa ne sama seet képp koo xamante ni seetal naa la. su ma la waxee sa sarax sa xaajo faju loo mëntu lijjanti ak loo mëntu dugg. jërëjëf wàllu boobu ñu ngi ci sant yàlla. am na solo jërëjëf Cheikh euh, Oumar Thiam ci mm-hmm. ponk bi nga xam ne moom lañ tàmbalee. Mm-hmm. ni ma ko waxee saa su nekk ku bëggut mu gis la jar nga koy woo ndax dina la wax li nga xam ne euh, lu leer lu mel ni midi ni ma ko waxee saa su nekk ku suñu borom baaxal la ci seet loolu moom da ciy def résultat. Euh, jafewut a jot numéro yi ñu ngi doon affiche suufu baar d'écran bi soo ko contacté di ngeen jëflante ba tarkal la jàll naa ci beneen ponk ñëw ñu yaatal ci bu baax a baax suñu naan nopp ah kay du suñu mbokki xalpulaar yi kese ñoo ko mën mais moom mii am na lu ko suñu borom dénk ñu ñëw li ngay waaw wàllum noob wax naa ne xam na noob yoo xamante ni ñu ngi koy liggéey ci ñett façon ah. am na noob boo xamante ni maanaam vingt quatre heures laa la may ci kàttanu yàlla xaaja bu faju am na noob boo xamante ni dama koy liggéey def ko téere def ko ci yàpp jox ko xaj mu lekk ko. tegal lool allahu rabbi bu ko xaj bi lekkee nu xaj bi toppee borom incha allahu rabbi noonu lay toppee moo xam jëkkër ak jabar la moo xam ñaar bëggante moo xam patron ak euh, taalibeem mm-hmm. Mm-hmm. waaye bu mu ci mënta doon ci kàttanu yàlla bu ñu seetee am na boo xamante ni maa ngi koy lëggéey jox xar mu naan ko ker bu ko xar mi naanee balam kay saw mhm. xaajo ba faju na déggal lool wàllum nopp wax dëgg yàlla karaama yi ma ci def jarul sax ma kay wax waaye nit ñi ñu ngi gisal seen bopp ndax bët bu set ñu boole ma ak waaw ci côté boobu loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax tarkalla acca euh, am na solo waaye damay jàll ci beneen boo xam hmm. ne loolu kenn weranteetu ko donte jaaro yu nañ ñu ngi lëmbe ci biir réew mi hmm. euh, koo ci gis mu nga takk ñetti jaaro ba ñeent ba juróom waaye koo wax mu ne man de sama jaaro moom doy na waar hmm. naa fu nekk euh, jaaro fay bor bi ngay liggéey ñu ñëw ci waaw jaaru fay bor bi dafa nekk loo xamante ni maanaam suñu maam lañ ko doonee ah. maanaam mu si doon dimbale jaamu yàlla yi ndax jaaru fay bor bi nekk na lu ama am solo nit ki bor bu mu mëntu yore ci kàttanu yàlla ñu woowee ñu jëflante seen moom incha allahu rabbi dana tàqaliko ak bor bi waaw bu fekkee ne ci biir réew mi la mm-hmm. jaaru bi dañ ko lëgëy jox la ko nga takk ko lëmas koog billet dix mille bu fekkee ne fii la billet dix mille wala deux mille francs ah. boo ko defee nga lëmas ko ci bu fekkee ne Europe la mhm. lu demee ni ki ay Espagne yooyu noonu mhm. boobaa man ngay jël euro bi vingt euro walla cent euro nga lëmasee ko ci bu fekkee ne Amérique la boo ngay jël cent dollars wala vingt dollars bu ko defee nga lëmas ko ci incha allahu rabbi dañ la wax noo xamante nii soo ko defee ci kàttan yàlla juróom-ñaari fan xaaja bi faju wàllu boobu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax aja kon mu ngoog ci loo xam ne bokk na ci jaaro waaye jaari fay bor bi Cheikh Omar di def loolu moom ku ko bëgg rek da ngay gaawantu njëkkante hmm. ndax lu baax moom du doy aja damay dem ci beneen mu di xam-xam xam-xam boo xamante ni mbirum xam-xam bëgg naa ñu yaatal ci ndax doon hmm. am na loo bëri loo xam ne bëgg nga cee wax waaw wàllu xam-xam bu gaaw mhm. côté boobu noonu wax dëgg yàlla dañ ci sabar ndax bari na ñu nekk ci biir réew mi wax dëgg yàlla dañaa soxla xam-xam bu gaaw bari na ñu nekk bitim réew moom tamit dañaa soxla lool. Mhm. jamono ji dëkk bi dëgër na dëgër goo xamante ni wax dëgg yàlla jaam yi fu nekk la ñuy nekk lu nekk lañuy ñuy yëngatu. Mhm. waaye képp koo xamante ni bëgg na xam-xam bu gaaw a gaaw incha allah rek bu ñu seetsee ci kàttu yàlla danañ ko si jàppale moo xam càngat lañ koy jox wala jaaru lañ koy jox. wala leneen lañ koy lëggéeyal insha allahu rabbi ci kàttan yàlla fu mu mëntu jaar mhm. balaay fukki fan ak juróom ci kàttan yàlla dana teexalal yoo xamante ni dañuy yaakaar ne sax daf ko sacrifice waaye fekk du loolu lépp ci alquran la sunguf ak reen mhm. ak yoo xamante ni maanaam ci nag lañ koy def wàllu woom ñu ngi ci sant yalla bu baax a baax mhm. jërëjëf euh, Cheikh Omar na nga yëngatu ci lu bokk ci mbiram loterie waaw wàllu loterie kooku waxoon naa ci ndax loolu dafa xam lu ñu ci yàlla may ñu ci liggéey ak suñuy jinne yoo xamante ni wax dëgg yàlla lépp loo xamante ni maanaam soxla nañ ko incha allahu rabbi dañ ci jëflante ak moom wàllu loterie ndax wax naa lu mat fukki kër ak ñaar yoo xamante ni maanaam ay nit ñoo ma ko jox ah. ak ay oto ah. wàllu wopp ñu ngi ciy sant yàlla te ci daxewu ma ko dara lu dama leen suyal loterie ñu gañee wàllu loterie képp koo xamante ni bëgg nga kay gañee mm-hmm. ci kàttanu yàlla moo xam euro million bi wala jackpot bi wala powerball bi wala bu ñu xoos wala méga million moom mhm. ci mënti doon ci kàttan yàlla boo ñu woowee incha allahu rabbi dañ la jox chiffre yi bu fekkee ne bu ñu xoos la ci kàttan yàlla ñu ne la jëndal nga foto ko yónnee ñu ko ci kàttan yàlla ñu def lu ñuy def mhm. incha allah rabbi foo mëntu jaar gagné côté boobu moom wax dëgg yàlla ñoo ñu ngi def karaama yu bëri te tey buñ defoon appel mhm. wallahi asim mi danga dégg téléphone bi di xar. dafa leer waaw côté boobu ñu ngi ci sant yàlla. kon a na solo mm-hmm. nettali ci làmb ñoom borom la. daaxte mm-hmm. dégg ngeen fii Cheikh Omar Thiam daaneele xam naa fan yii di nga sonn ndax sama mbokk yi ndaween ñi ñu sant mm-hmm. yàlla. Euh, mbiram xaalis rek nu mu gën a gaawee ak nu mu gën a bare dañ koo soxla. kon daw leen su ngeen bëggee lëttëri pour gagner. fexe leen ngeen euh, jëflanteeg Cheikh Omar Thiam dina leen teg ci yoon. dem naa ci mbiram papier mu di këyit euh, saa su nekk. seen mbokk mu si seen xel da ciy dem ñu bëri pour ñëw ci réew mi dañu def juróom-ñaaraat lu teg pour ñu yónnee problème lay doon pour ñu ñëw loolu jafe-jafe lay doon. Hmm. ci biir réew mi ñuy def examen concours saa su nekk. day doon lu hmm. jafe ci ñoom mbirum papier waaw wàllum papier ak wàllum concours képp koo xamante ni yaa ngi lijjanti papier mu jafe la moo xam ay xat nga ko lijjanti wala ay weer ci kàttan yàlla wooñu dañ la jox cangat boo xamante ni juróom-ñaari fan nga koy sangoo doo toog juróom fukki fan ak juróom mukk te jotoo ci kayit gi. Hmm. ak kayit gu mu doon ci kàttan yàlla. fukki fan ak juróom doo toog mukk te jodoo ci kayit gi mhm. wàllu woobu ñu ngi ci sant yàlla ah. bu fekkee ne wàllu concours la mhm. dikkal nañu concours lañ bu ko def concours nangam insha allahu rabbi ñu jox la ñu lay jox nga jëfandikoo ko ci kàttanu yàlla wala ñu jox la téere boo xamante ni moom ngay takk ci kàttanu yàlla bu concours bi génnee da ngay xam wàllu woobu ñu ngi ciy def karaamatu mhm. doy waar loolu ñu ngi ci sant yàlla visa lépp bu mu ci mënta doon bu dañ ko jox cangat bi mu sangoo ko juróom-ñaari fan ci kàttanu yàlla nu mu gën a gaaw këyit bi day génn. tarkalla waaw loolu ñu ngi sant yàlla. am na mm. solo jërëjëf euh, Cheikh Omar cam ci mm. loolu lañ amoon lu ñuy yaatal waaye ni ma ko sama intro foofu la ñuy jëm mm. yaatal ci bu baax mu di combat bi dox ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier. Mm-hmm. to kii di ëmma seen moo ko daanoon mu di revanche. Mm-hmm. fi mu ne nii nag xel yëpp. kii mm-hmm. daan rek la ñuy xaar fi mu ne nii kan mooy daan. ndax mbir mi dafa am loo xamante ni maanaam sëriñ dañ koy laam-laamee waaye combat boobu noonu am na lu ñu si yàlla wan sama jinne ji déy ma ko di karang tabaan ah, karang tabaan wax na ma ne mhm. combat boobu noonu incha allahu rabbi lu mu yàgg yàgg yàgg ndam li Bombardier moo koy gën waaw côté boobu moom te wax dëgg yàlla mosul may wax luy dëñ te li may wax nit ñi ñu ngi ciy teg seen bët. sa jënd jël waaw nee na ma incha allahu rabbi Bombardier moo ci xam ndam. Hmm. waaw loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw moom moom moom wax dëgg yàlla. Hmm. mosul ñuy wax luy dëñ. waaw te du tey jii la koy tàmbali incha allah. tarkalla ah, ah. kon mën nañoo jàpp daal Bombardier moo yore ndam. incha allahu rabbi mooy daal jërëjëf ñu bala nga tàggatoo. waaw di sant yàlla di leen sant. Hmm. di. dolli di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yëpp di leen siyaar di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm mm-hmm. wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla def fi jàmm saxal fi jàmm di wax nax ndax ndax mag ñi wax dëgg yàlla nañ yërëm xale yi xale yi tamit nañ respecté mag ñi te aussi tamit maanaam nañ di laayante biir te bañ di farfarloo waaw nañ di bàyyi jaxase yi mm-hmm. nañ di bàyyi naafeq yi nañ di bàyyi rambaaj yi te ñu ñëpp ñu nekk benn jublu ci yàlla te ñun ñëpp ci yàlla la ñuy wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf